sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ku xam-xam ñor la ne saa su ne mi ngi koy wane ci wax ak ci jëf te ji di talaata dëppook fukki fan ak ñeent ci weeru koor atu 1442 ginnaaw gàddaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wool woon fii ci Touba gone yi nga xam ne ay góor lañ ak ay jigéen toll ci sàkku xam-xam ngir teral leen waxtaan ak ñoom waaye ñaax leen ci li nga xam ne moom lañ nekk muy lu am solo ci tout tànk muy sàkku xam-xam. loole nag lu ñor sëriñ bi la moo tax mu wóolu leen defal leen ay bernde yu am solo ci koor gi waaye gën leen ñaaxaat ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom lañ nekk muy sàkku xam-xam. ngeen jógee ba lu ne xëj na fi fi yàqu eh, dem tukki wuti lu am yooyu yëpp a ngi fi woon loolu lépp am na yàlla mosal ne leen ci dalu leen. shukran naala irtiqa naala intiqa wa bika ltaqa ahlu tuqa ya muntaqa ramzal baqa ramzan naqa naala irtiqa naala intiqa wa bika ltaqa ahlu tuqa ya muntaqa ramzan naqa chakarat culuumun walmacaarifu juhdakum fa bikum xawat cinda arrijaali tafawuqa bika zaalat alaxyaaru canha jumlatan فالكل في جو الهناء تحلقا أكرمت شبان العلوم وشيبهم albastahum thawban jamilan rawnaqa fataxuu bikum biibaana bishrin sayyidi lawlaaka maa kaana almajaalu li yutraqa fiqhun ataaka maa tasawufi shaakiran wal aqdu baata bikum saxiixan muntaqa wa xadiisu xubbika wal wa xadiisu xibbika wal qasaa'idu kulluhaa zaadat cinaayatuhaa bi fadlil muntaqa allahu kammala maa sharacta mujaahidan daaral macaarifi majmacan naxwa ttuqaa daaru sacaadati walhidaayati walculaa daaru lbishaarati walamaanati wannaqaa liyaqul jamiicu alcaalamiina biqalbihim allahu tawala cumra cheykhin muntaqaa asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax ci turu ñii fi daje ñoom ñëpp di sag njaboot di say taalibe di sa waa kër di sag moomeel amuñu lenn lu dul yow ndax Cheikhul Khadim mooy seen lépp ñu ñëw tey ci ndaje mii nga xam ne yaa ko woote ci sak càkkuteef sa waxtu xat na lool ñëpp lañ laa yittewoo rawatina ci weeru koor wi waaye nga sàkku ne nañ ñëw tey fii ci sa kër ndogu si ak yow muy lu rëy lool si mboolem ñu fi teew gisuñu ci kaw suuf lu gën a rëy ci lii ci suñ bët ndax amuñu sikki sàkk ci sëñ Tuubaa moo dogoon ñun tey amuñ ci sikki sàkk nga woote ndaje mi soññ leen donte ma soo jug ci di leen soññ woote ko ngir teral leen donte ma soo jug ci di leen teral soññ nga ñëpp ci sa taxawaay ci sa jëfin ci sa waxin tey jii ñu nekk fii ab sag nga ci lislaam gépp képp kuy jullit képp kuy bokk ci Cheikhul Khadim siggi na tey sa taxawaay ci yoon wi sa taxawaay ci lislaam sa taxawaay ci réew mi ñu dul jullit sax bëgg nañ ci rawatina ñuy jullit rawatina waa kër Cheikhul Khadim ñun ñu ñekk ci ci biti ñëpp saa su ne suñu mbokki jullit yi ci des ñu ngi ñuy ndokkeel ngir say taxawaay yu am solo loolu mbooleem ñi ne ci biti xam nañ ko kon ñi ngi lay xamal ne la ñu ngi lay sant bu baax ñii fi teew ñëpp seen lisaanu xaal genn kàddu rek lay wax mooy li sëñ bas tëjee xasida gi mooy yàlla na fi yàgg te wér yàlla suñu borom fekk soo fan ba mbooleem yéene yi nga am te bëgg koo liggéeyal Cheikhul Khadim lépp nga def ko ni nga ko bëggee di la wax ne ci turu mbooloo mi ak mboolem ndaw yi bokk ci yoon wi ñoom ñëpp nañ ñu ngi feddaliwaat seenu jaayanteeg Cheikhul Khadim di ko teg ci sa loxo xam nañu ne ànd gi ñu ànd ak sëriñ bi du du du liggéeyi ndey du sens du dara tawfeex gu ñu suñu borom defar rek la. sëriñ bi moo ne woon ñi àndal ñëpp moo leen tànnal boppam tànn googa ku ca bokk loola suñu borom dimbalee la waaye du sax lu la say waajur liggéeyal di la waxaat ne la it ñi ngi jaayanteeg yow ne woote bi nga woote woon ne ñëpp nañ ci ñëw te mooy i'laa kalimatillahi al-ulya ñoom ñii ñëpp ak ñi fi teewut fas nañ yéene feek ñi ngi am nooyi gu leen dese ci loolu la ñuy sax te sax nag kalimatullahi al-ulya loolu moom laa yamtari fiihaa nabiyyun yaqilu ni ko Cheikh Khadim di waxee kon ñoo ngi lay ñaanal Mbàkke sa fan gën a gudd suñ borom barkeel la ba mboolem naa li nga naaral Cheikhul Khadim yëpp àgg ci ni nga ko bëggee te nga daje ci ngërëmu sëriñ bi am ci lu kawe sa njot ba mboolem li nga yéene ci askan wi yéene ko ci yoon wi suñ borom defal la ko ni ko bëggee jullit ñëpp a ngi lay sant réew mépp a ngi lay sant ku bokk ci sëriñ bi xolam sedd na ci yow yàlla na suñ borom yokk say ngëneel te yokk say ngërëm te gën a guddal sa waxtu bi xat na lool kàddu yi cant mënut a weesu kàddu yi cant mbokk yi yëpp buñ jëloon wax lu gën li ma wax jërëjëf Mbacke Mbacke Mbacke jërëjëf jërëjëf te mbég mii ma am ne man mosuma ko am <laughs> mu ko ëpp <laughs> ngir seen seen seen seen jataay bi eh, ak eh, li indi jataay bi muy eh, muy muy muy muy muy positif mu yitte moom rek moo moo moo moo waral nekk gi mu nekk ci yéen suñu borom defal leen ko ci coobaram ci lépp di tawfeex Sëñ Tuubaa waxuma sax tawfeex sëñ Tuubaa waaye pàggu teefu sëñ Tuubaa ngeen ndax sëñ Tuubaa lu mot a fàggu lu gën lu ne fàggu na ko lu mot a fàggu fàggu na ko lu mot a ñaan ñaan na ko kon da ngeen xam ne yéen ci pàggu teefu sëñ Tuubaa ngeen bokk waxuma la ngeen am tawfeex sëñ Tuubaa sax waaye da ngeen bokk ci da ngeen bokk ci pàggu teefu sëñ Tuubaa ndax ah, ah, amul benn farwa benn farwa ci kaw suuf bu am njëriñ bu dul bu bokkut bii mm-hmm. amul benn sarwa boo xam ne sarwa mm-hmm. bii nga xam ne mm-hmm. tey du ñëpp xamuñu ko sax xamuñu ko woon waaye da ngeen xam ne yéen farro bi bi bi bi bi sëriñ bi doon wut nga moom mooko ko moo ko bëggal moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko na ngeen sant yàlla bu baax te xam ne eh, eh, eh, si ci bàggu tefam ngir bokk kon nga da ngeen xam ne ci farma bi dëgg la sëriñ bi moom lu fi xaj rek dana feeñ lu fi xaj rek ci sëriñ bi dana feeñ waaye la ci gën am la ci ëpp nag bis penc ba feeñ loolu moo ko junñu boppam loolu moo ko waxal boppam waaw waaye kon kon ginnaaw lu mat a faggu faggu na ko lu mat a ñaan ñaan na ko waaye dara jiituwu ci nag seen mbir dara jiituwu ci mbir waaw fi ngeen toll nii ndax euh, xam naa gàllankoor yi bu baax a baax a baax a baax xam naa tolluwaay yi baax a baax a baax xam naa xam xam naa gàllankoor yi bu baax a baax kon fi ñu fi jaar fi ngeen jaar ba fi fii dëgg la pàkkuteefu sëriñ bi la ci am taw taw fee xam waaye li leen ci li li ci saaye si nag ci yéen la muy yitt ji yitt ji rek ci am solo xam na gàllankoor yi bu baax a baax a baax ndax lépp dama fay xuus jaar fi ba xam na gàll kon kon bu bu bu leen gisee nii eh, xam fi ngeen jaar ba agsi fi loolu dëgg la pàggu tëf la tawfiq la waaye it seen itte ju yàlla def ci yéen la seen itte ju yàlla def ci yéen la kon kon ngeen ngeen gën a yëg loolu bu baax a baax a baax a xam loolu bu baax a baax yitte nag dama amul fu mu yem yitte amul fu yem kon yàlla mi def yitte jooju ci yéen ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak pàggute moom tawfeexam noo ngi ñaan mu gën leen a gàtt nag tawfeex Sëriñ ba yitte jooju gën a gën a gën a gën a gën gën a màgg ci yéen gën a dëgër ci yéen gën a yaatu waaw ndax ndax alhimma al aaliya fu fu fu fu àgg rek moo ko fàggale fu lu baax àgg alhimma aliya fu lu baax ak rek moo ko fàgg waaw kon nag na ngeen xam ne loolu euh, am ngeen ci ndam ndax dëgg la pàgguteefu sëñ bi la tawfeex moom nga waaye nag euh, am ngeen ci ndam loo xam ne yéen ko defal seen bopp yéen ko liggéeyal seen bopp mooy yitte ji ba ngeen ba ngeen agsi fii waaw waaye nag kon alhamdulilahi rabbil alamin na ngeen xam ne ngeen euh, war ci Euh, suñu liggéey mooy liggéey bu séenee liggéey sëriñ bi rek mooy sunu mooy sunu itte waaw euh, kon mm, itte jooju la leen yàlla def ci yéen euh, danañ ñaan bu baax a baax a baax mu ànd ak tawféex ji di dolli ko ci yéen di wéy waaw yéen ngeen xamal ko seen bopp nag te xam ne itte nag ci si rek fu lépp mbir àgg mu baax itte ko fa àgg nag ngeen gën a soññ eh, eh, seen bopp eh, sëriñ bi moom moom dafa boolewul ak dara boromam yonent bi képp la ca boole te moo sant moo ko digal sëriñ bi boolewul ak boromam waaw yonent bi dong la ca boole te boole moo ko ndigal ci digal mu nekk fi li mu fi nekk nag lépp mu nekk ko ci borom te loolu rek loolu lépp mënoon na ko ci bañ a fekk ndax may gi da koo ëndaale. waaye da koo teg nee dem jaar fa jaam ñuy jaar. ba àggaat ci borom. sëñ bi mëneesu ko mesal. loolu dama ci éditeur bi rek. waaye mëneesu ko misaal. sëñ bi sëñ bi sëñ bi digg ba ko misaal. waaye mëneesu ko xamee ne daal sëñ bi daal bi mu jógee. négul ku ku ko woo. dañ fi négul yéen négul yonent dafa jóg rek jëm ci boromam boromam door ko door ko door mu boole mu loole nag yemale ko tawxiitam waaw noonu la demee noonu loolu yéen loolu ngeen yéen yéen euh, sëñ bi mooy seen dono sëñ seen dono waaw euh, kon alhamdulilah rabbil alamin lii euh, ñun ñii seen i waajur seen i kilifa xamuñu woon xamuñu ne léegi lu mel nii am na ci dëkk bi xamuñu ko xamuñu xamuñu ko sarwa la bu rëy boo xam ne bokkut bokkut ak dara ay milliards dëgg la moo gën fuuf ay téeméeri téeméeri téeméeri milliards bi seen tar lii ngeen lii rek lii ci lii ci feeñ rek mm-hmm. moo gën téeméeri téeméeri téeméeri milliards ak ak économie fi mu toll ci jamono ci àdduna. foofu laa ko waxee. fi économie toll ci àdduna. foofu laa waxee ne yéen ñii. ci farwa ngeen boo xam ne. yéen a gën fuuf téeméeri téeméeri téeméeri milliards. ñi nga xam ne noonu seen bopp kon ngeen ngeen gën a ngeen gën a xam seen bopp. incha allah incha allah waaw. incha allah dëgg la. ñun ñu di seen waajur di seen i kilifa xamul xamul ne am na lu mel nii am na ci dëkk bi. ñaar ak ñett ñu ne ñeen rek xamul ne am na ci dëkk bi. waaye nag ngeen xam seen bopp yéen. xam seen bopp. waaw eh, eh, sëñ bi moom. Eh, day day tawfeex rek la ko day tawfeex boromam. tawfeex rek ay tax am man am sëñ bi. waaye kon nag ginnaaw moom dafa liggéey liggéey bu rëy bu toll bii mu liggéey nga xam ne du mënta feeñ fii bés buñ ci lay feeñ eh, waaye nag liggéey boobu li mu rii rii rii rii rii moom mooy suñu dono amuñu beneen dono kon lu ci ñàkk ñàkk solo lu ci néew néew doole lu ñu di doole doole nan ci nekk rek nan koy jéem a xam de ko ci gën na gën a nekkal sante ko ko ndax du mën a weesu luñ ci def ak lu mën a pedd ak lu mu toll rek luñ góorgóorlu góorgóorlu duñ mën a weesu sant ko waaw luñ ci def luñ fu ñu toll fu ñu ci toll leen ko koy sante waaw waaw noonu rek dana eh, alhamdulilah rabbil alamin eh, jàngu bi tey muy xam-xam bi université bi tey eh, dëgg la hmm, ko yàgg bëgg laa bëgg xam-xam laa awuma xam-xam waaye ku bëgg xam-xam euh, loolu ci laa nekk eh, ba lay fekk ma ci euh, xaw ma ci sama bopp dara doonu ma ci dara waaye nag taluma dara nag sëñ bi rek laa li wax lépp dara du sëñ bi laa tal kon nag alhamdulilah kon bi nga xam ne nag lii da am na fekk na ma ci mm-hmm. man xam-xam rek laa bëgg te xam naa ne léegi mënuñu sëñ sëñ bi liggéey sëñ bi rek nu war sant ko te mënuñu koo liggéey lenn ci xam lu xam-xam moom lañ ko mën a liggéeyee moom lañ ko mën a sant waaw dëgg la moom noonu noonu rek la demee kon jàngu baa ngoog yéen rek lañ ciy wut la muy rëy rëy lañ ciy wut kon ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin Euh, am nañ ñu ñu mel ni yéen waaw bi nga xamee ne loolu noo xamul waaye sëñ bi moom xam na moom ngi mo yéen si faggu tef sëñ bi da ngeen bokk waaw waaye nag ngeen ngeen ngeen gën a xam seen bopp nag te bàyyi lépp nag la ngeen na sëñ bi def bàyyi nga teg ko fee def jaar fa jaam ñi jaam jaar yéen li ngeen taw seen taw fex jure ji ngeen am ak pàggute bi ngeen am mm-hmm. bu leen da ngeen góorgóorlu yéen fas yéene nag jëf liggéey liggéeyal sëñ bi seen liggéey bopp leen mm-hmm. ko liggéeyal seen liggéey bopp ci ci ci ci ci ci xam-xam mm-hmm. waaw kenn ku ci fa nga toll rek na ngeen na nga am positif dol si def sa yitte jëpp muy yokk sa xam-xam fas yéene koo liggéeyal sëñ bi ngir nga mën koo nga mën ñu mën ñu mën koo ko sante foofu rek lañ ciy toll <laughs> mën nañ fi fanaan du jeex waaye ñu yem ñu yem ñu yem foofu ñu yem foofu ñu yem foofu tubarkalla am na ko moom waaw tubarkalla tubarkalla wax dëgg yàlla li jàng bu itam eh, alhamdulilah sëñ bi gàtt nañu ci ah, eh, moom gàtt nañu ci rek taw fi sëñ bi ndax biñ tàmmee ak fi mu si hmm. yaakaar naa ne ku ko seet ñi xam liggéey xam nañ ne loolu moom gàttu gàttum tawfeex rek la hmm. Hmm. loolu na kon moom mu ngoog buñ loolu it man yaay yéen ñu fay def matériel boobee yéen dong tax waaw ak ak wut ñu mel ne yéen rek muy wéy nag di wéy dañ ni ma ko waxee woon rek yàlla kalimatullahi waaw loolu moom loolu rek la demee jërë ngeen jëf sama xol sedd na guy ni ma ko waxee rek mosuma am mbégte mi ci ci mais am ci te xam naa ne dutuma am mbégte mi ko ëpp kon li may ñaan rek li nga xam ne moom moo gëneen bëgg gudul euh, lëggil sëñ bi rek ndax nu mën ko ko sante waaw lëggil ko ndax nu mën ko sante amu beneen xalaat waaye moom rek laa leen bëggal itam ndax képp koo xam ne xol boo xam ne euh, waxuma la yéen waaye xol bu Sëriñ Tuubaa nekk. la ma bëgg sama bopp rek laa ko bëgg. waaw yéen yéen nag. dama leen gëmewul yéen. waaye nag alhamdulilah. na ñàkk solo la sax waaye maa ngi ñaan suñu borom mii dafa ko dindi gàttanu gën leen a gàttanoo tawfiq sëñ ba ci fa nga bëgg ak ci xam-xam la nga àgg te mën a wëlbatiku na liggéeyalaat ko sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant a cheikhul xadim di sant bu baax sëriñ bi radiallahu taala anhu xanaa di mottali rek kàddu yu kon ci niñ ko bëggee waaye kàddu yu kàddu yu sant lay doon ak di ko jëmale ci soññee ci sunu mbokk yi nga xam ne mooy sunu mbokki taalib yi ñu teewandoo bokkoon teew ci jotaay bii nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko woote woon di ci te woowoon ci tuut tànk yi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum xam-xam ci biir yoonu murit euh, ngir soñu leen ak euh, ñaax leen tegaat leen ci yoon ak sant leen ni mu ko waxee rek woo te defe ko woo mboolem tànk yi nga xam ne danañ mën a wuutu ñi ñëwut mu berneel leen nu ndogu fii ci moom euh, ginnaaw bi kàddu yi nga xam ne ne soññ nañu ko ñun ñëpp ñu dégg ko euh, leneen li ci des euh, sant yàlla rek la ak yëgaat Cheikhul Khadim ak dolliwaat ak góorgóorluwaat fas yéene takkaat sunuy laxasaay tàmbaliwaat njàng mi mu mel ne ngi fas yéene dalaat baax ci yoonu xam-xam waaye lépp nu delloowaat ko sëriñ bi rek ni mu ko waxe kon nag nuy jottali kàddu yoo xam ne ne dañ koy jëmale ci mbokki taalibe muy tuut tànk yi nga xam ne yooyu tuut tànk yoon wi di tey yëngutu ci uh, wàllum xam-xam di leen wax ne li des yoon waa ngoog ni ko sëriñ bi waxe kon nun kenn ci nuntu tànk yi nga xam ne jàng jàngale mooy sunu yoon ci yoonu sëriñ bi amatuñ wennu lay waaye amatuñ benn ngant ni ko sëriñ bi waxee xam na ngant yëpp xam na jafe-jafe yëpp waaye nag moom bu kenn rek bu kenn bàyyi kenn ci ñun amatu sañ-sañu uh, teggi ko ci yoon wi ndax mooy sunu liggéey sëriñ bi mooy sunu liggéey ci sunu digganteek ak sëriñ bi kon nag euh, sunu mbokkitu tu tànk yi ak ñi nga xam ne ne euh, amoon nañ yéene teew te teewuñu waxi sëriñ baa ngoog kon nanu jaajuwaat bu baax a baax a baax te xam ne sëriñ Tuubaa teral nañu tey teral teraanga joo xam ne wala teral na leen teraanga joo xam ne euh, teraanga du ko mënu koo féete ci kaw mukk tey juddu bu rafet du ko maye te it euh, chance du ko maye euh, wala liggéeyub ndey du ko maye lii xaas la xaas la yoo xam ne lii cant ga li koy fay rek mooy tege ci ndigal loolu sëriñ bi wax waaye mooy tege ci yoon woow nga xam ne ni noonu la ko sëriñ bi ba bëgg kon nag mm, ngal la nun taalibe yii nga xam ne ay tuut tànk lañ te ne ci yoon bii nañu fexe ba doon maam Cheikh Ibrahima Fall ci waar wi nañu fexe ba doon maam Cheikh Ibrahima Fall ci waar wi mooy nañu fexe ba yan bi bu mu laal suuf nanu fexe ba na ko fi sëriñ bi teg euh, bëtam muy borom xam-xam ya nga xam ne ñoo ne woon ca Xijaaz ci madinatul a war ne ci xum euh, noonu mu ko daan misaale nanu fexe ba bu ëllëgee tout tànk ya foofa di tout tànk lislaam nuy ñëw fii ci Touba di ko sàkku si te loolu rek mooy yéene sëriñ bi loolu rek mooy ab junjëm kon nag ginnaaw ba euh, li ci des mooy sant yàlla ba nga xamee ne euh, def nanu daje bii nga xam ne daje nañoo moom mu ne mbégte gënu ko musta bég nu mel te dootul bégati nu mel loolu cant munu ko weesu Sëriñ Tuubaa desi latunu dara kon nag li ci des mooy nanu fexe doon ay bàyyi faal ci waaru xam-xam te bañ cee bëgg dara bañ cee yëg dara te yëg ci sëriñ bi rek ni ko sëriñ bi bëggee bu boobaa mbégte mi nga xam ne moom la ñu def bu boobaa ngërëm lay daal di soppi ko yàlla na ko sunu borom boole defal nun ñëpp eh, na saa borom defal nu gër bëggub sëriñ bii ñu ciy dabu ak eh, mbégteem yàlla ñu suñu borom dimbale kon kàddu yi dañ ko doon delloowaat rek dina mun ta ñàkk ci jëmale ko ci sunu mbokk yi nga xam ne noonu ñoo ñoo fi teew euh, la jëm ci sëriñ bi moom wax nañ ko la sëñ bi la jë la sëñ bi la jógee ci sëriñ bi jëm ci ñun it sëñ bi wax na ko nu dégg kon nag li jugee ci sunu bopp delluwaat ci sunu bopp loolu rek lañ doon jottali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.